nga ñëw si mariage collectif mariage collectif dafa am lu ko jiitu bàyyi laay bi nga gënee àddina nekk jigéen ñu tudd la tey jour boobu lañ lay may borom kër lañ lay may borom kër waaw. boobu moo jiitu. te boobu dañ ñoom dañuy tudd bis bi xale lañ koy tudd. waaw déedéet bu bu hmm. juddoo. Hmm. le septième jour. Ah, le septième jour lañ lay tudd. Hmm. le septième jour nag ñun dañu topp. le calendrier lunaire à cent pour cent mhm. parce que le jour bis mi ngi tàmbalee si guddi gi tey jii bu ñu demee ba timis jot bon ñu ngi si guddi ak samedi waaw bon boo xëyee si jouru samedi bi samedi bu timis jotaat rek samedi jeex na mhm. bon ñun lépp lu ñuy def boo juddoon nii samedi avant timis bon dañ naan sept jours dañuy compter foofu sept jours bu fekkee da nga judd après timis rek jour boobu da siy bokk ba da ngay day mel ni yow dimanche nga dimanche nga gën a àddina léegi jour boobu la ñuy compter ba mu ba septième jour bi si lañ lay tudd mm-hmm. Mm-hmm. buñ la tuddee sept jours après ñu xarafal la mm-hmm. et scientifiquement c'est prouvé que ne sa quatorzième jour après sa jour de naissance sa sa say taux d'hémoglobine non su ma juumul euh, si mooy tax sa coagulation euh, de sang dafa naa xam ama gën boobu rek lay nekk si nit à cent quarante à cent soixante pour cent moo tax jour boobu bu ñu la circonciré automatiquement day gaaw a cicatriser wu te doo am kii te deux trois jours après nga wér. Hmm? voilà bu ko defee nag yow ku jigéen ki bu ñu la mayee bu ñu la tuddee tey tey tey dañ lay may boroom kër tey. Hmm. waaw bu ñu la ngéntee tey rek may nañ la borom kër te da koy xam booy gën di màgg nga koy xam. nga gis dangay dem sa ba léegi waay jur yi dañ def si diggante bi bu tabaski jotee wala bu koy jotee nga gis sa borom kër yónnee la benn robe en tant que xale nga xam ne ni kii sa soxna la loolu yow yaa ngi koy toppatoo bu ngeen demee ba màgg nag ñu gis ne nag diggante bi bëggante ngeen mën na nekk ah bu boobaa nag ñu officialiser ko nga dem. day am can loolu mën na yàq mbokk day am can non du yàq mbokk. ah si parce que boo leen demee ba xam ba ba euh, ndaw si gis ni waa ji daal ñaawaayam bi mënuma ko supporter wala waa ji gis ni ndaw si. vraiment mënuma ko supporter ñaawaayam bi ah. ni la yoree la ñee jotoon nañu. waaw moom laa la fekk non xam nga lu ñu la mën di yar tamit xel. waaw doomu aadama dafay évoluer. Mm-hmm. nga dem ba gis ni kii ak li famille bi investir yëpp mais vraiment kii. waaw ah yow ah, ñaata ñaata nga takk jabar tey tey tey tey suba ngeen xëy divorcé te nga def si ay millions xam nga loolu c'est c'est c'est c'est c'est personnel waaw yaa gis bëgg mais bu fekkee famille ñoo ko arrangé ba nga màgg gis ni lii la communauté bi sam waaw fekk yow sa xel may na la leneen waaw mais boo jàddee day mel ni da nga nekk benn benn non non non non benn rebelle wala déggoo du rebelle jamais ñu considéré comme rebelle déggoo li la wax nit kenn du ko forcé amul forcé daal amul forcé tu es libre. yow boo màggee daal xàmmee gis na ni kii sa destiné la. waaw waaye. yow yaa am le choix nag sa dernier mot yow la bu ngeen demee nag ba nekk mag sa dernier mot foofu yow lay kii boo bëggee ñu joxeel boo bëggewul ah, dañ koy tas parce sëy bu normal la dañ koy tas may la ki nga bëgg en tout cas daal amul forcé amul forcé. léegi nag mariage jëfandiku gi nag moom yéen dañ leen appal si da ngay dem ba nekk déggoo ba tollu sa. ba ngeen d'accord bu ko defee nag kilifa yi waxtaan. waaw rafetal ko. mariage boobu mënu am consommation moo gën a sell yow loolu mënul nekk. parce que luy foog ngeen atteindre benn âge. majorité majeur ba pare yéen ñaari ngeen décider da ngeen bëgg. boobaa ngeen. boobu amul problème boobu c'est déjà kii. dañ lay jël acte nañ ko dañ lay jël defaraatal la muur la après nga dem. mais takk amatul takk mu takk mënul am ñaari takk mënul am. super xam nga loolu rek la léegi nag yi gis ne jeunes yi dañuy bëggante. Mm-hmm. ñoo xam ne diw ak diw nañ diw ak diw nañ mais ku góor ki peut-être amul moyen yoo xamante ne. conditions yi actuelles yi ñëw takk jabar def xew def lii def lii yu bëri day di si moom. Mm-hmm. ñu ne nag nañ def ay mariage collectif ni muy demee mooy yéen ñi bëggante seeni waajur ñooy waxtaan. Hmm. tënk ba juboo ne diw dinaa ko may diw. jour bu ñu koy def ñaari parti yëpp dañuy ñëw imaam yi xam nga lu ñuy def xutba yow mi maye ak ki ñuy may yéenee toog jàkkaarloo kii ñaan la nga may ko. Hmm. imaam xutba maanaam bu junniy sëy bu fa doon takkoo junniy sëy noonu lañ koy takkee. Hmm. mais du xalif bi benn xutba lay doon. ku def imaam yëpp ay ñëw. day bëri imaam. waaw dañ koy dañ ko dañ ko organiser. Ah, ngeen. day am imaam yi ñuy toogee nii ñu ku nekk di ñëw di ñaan ñu koy may. maanaam yow. nga dañ koy defandoo pour mu bañ a dañ koy defandoo ay ay ay ay programme ay programme waaw mais kii ñaan day taxaw nii kii may taxaw ñu toog nii. ñaan normal la kii may taxaw nii ba ñu génnee can li teg. waaw. ñaan normal la fekk parents yi waxtaan nañ ci waxtaan nañ tënk nañ. voilà lépp dañuy kii rek. waaw dañuy ñëw nag maye xutba comme niñ koy defee si jàkk bu ko defee mu nekk ensemble ñëpp dafa ndoo ko léegi ku nekk bu delloo sa kër ku nekk muur sa jabar monsieur léegi bu ko defee yow ak sa famille yéen a fay nekk boo waroon togg fanweeri mën boo meetul bool sax ngeen togg parce que yow ña ñëwul ku si nekk yaa ngi si xew donc c'est une économie d'échelle boo xamante ni dina permettre nit ñi ñu économiser parce que li ma amul wooteem da si sóor développement mm-hmm. ndaxte liggéey da ko fonk